ku mbolo mi ma len di nuyu yen ñep ku ci nek ci sa tur ak sa sante di len wax ni man ajaratu naar fay la tuddu di doomu Jubel. ñew nak uniquement pour jàppale Jubel. ndax euh, gis na ni dekk bi dafa wara développer ndax euh, bu fekkente ne ñun dañoo juddoo ci dekk yaroo ci dekk magge ci dekk yalla teral ñu te teral lu ñu ba kon ñun fay am suñu mission day am lu ci des usine bi nous ñu ko fi depuis 2018 nek ci di jog di daanu bo nous léegi yalla jappalé ñu ñu Avancer ci bu baaxa baax mais yalla mi dara tëwul tam nous. ñu tax mo ñu tek ay ba fi wax ak yow ni mën usine bi dafa arrêt mais taxul ñun ñu taxaw euh, usine bi bu fi Nous ci gox bi di am sens ñun nak li ñu gëna motiver bi usine bi amee jafe-jafe mënoon nañoo toog ne dañuy xaar ku ñu ci dimbale wala dara waaye defuñu loolu ndax usine bi juróom-ñaari bakkan da cee des te ñooñu am njaboot njaboot gi war a continuer di dund donc suñu mission dafa war a yokk waaye warul wàññeeku loolu nag poussé ñu ba nga xamante ne xam nañ ne dëkk bu développé jigéen ñi ci kanam ñoom ñoo ñoo jigéen ñi ñoo ci taxaw ba mu développé loolu moo waral ba tey jii ñu ñëw pour jàppale dëkk bi jàppale jigéen ñi jàppale biñ leen bëgg le nak, dañoo bëgg defar projet bo xamantene jigen jigéen ñi ku ci xey di nga am fo fo dem liggéey projet bi nak ñu ngi koy commencé ci formation bo xamantene dañ leen ko jaglél Star industry mo ci and ak ay partenaire ñew pour jaglél les formations bo xamantene euh, ci ci ñenti patch lañ ko lañ ko lañ ko def benn bi dinañ def élevage. dinañ def maraîchage dinañ def entrepreneuriat dinañ def import export lo formation bi nak buñ ko defee ba paré ku ci nek dinañ la jox xam-xam bi nga xamantene mo ci jaadu ba nga wara a mën demal sa bop mais liñu ñu liñu li ñu gënaloon nag ñun buñ leen formé ba paré ñu àndandoog yeen continuer diko ko liggéey ci usine bi mu doon lo xamantene day doon jëriñu jigen ñi ci dëkk bi waye day doon tam njëriñu usine bi formation yi nag nii lay tëddee ñeenti formation la donc ñeenti groupe yoo xamante ne dañ leen di former lay doon ñi nga xamante ne dañ leen di former ci ci élevage dañ buñ leen buñ leen euh, former ci élevage ba pare day amaat beneen groupe bi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci import export ak ci vente yi ñoom lañuy joxaat li ñu jëlee ci ci élevage bi ñoom ñoo koy jël tas ko ci dëkk bi suñu mébét nag ci élevage bi mooy dañoo bëgg képp fépp fu ñu nekkati ci àdduna soxla ginaru Senegal da nga nan dem len tukki kat bu ngeen fa deme ci village ba ñuy wax nebbe ci usine ba ci star industry di ngeen fa fekk seeni representant ñom ginaaru rek la ñuy defar ndax biñu geus defé suñuy geussu gis nañ ne lu gëna a bëri ci magni suñu rombé juroom fukki at juroom ben fukki at dañuy gaaw seeni yax di dam dañu doon sangu danoo daanu dam seen tank dafa nangam ñu gis ne peut-être lek biñuy lek mom mo am leneen lo xamantene daf ci rax te bokku ci woon ndax bu ñu defee bu ñu delloo ci ginnaaw tuuti dinañ gis ne sunu maam yi dañ naan dund ay at yoo xamante ne doo ci dégg kenn ku rëq bay damm donc loolu il faut lekk bi ñuy lekk ñu xoolaat lan la ñun nag bi ñu defee suñuy gëstu gis nañ ne ginaaru Sénégal bu ñu koy lekk moom moo ñuy gën a avantage gën a ñoo yokk santé que bu ñuy lekk yeneen yi donc loolu day day day daf ñuy permettre tam ñu ñu ñu ñu participer ci santé communautaire bi su fekkente ne affaire maraîchage bi maraîchage bi tam day ànd ak culture locale c'est-à-dire tey bu ñuy def maraîchage tam dañuy def mbayum noor mbayum nawet su fekkente ne am na ñoo xamante ne loolu intéressé na leen tam dañ leen di former ci maraîchage former leen ci mbayum noor ak nawet yëpp de ce fait ñoom bu ñu bayee ba pare duñu am jaaxle pour li ñuy baykat fan lañ koy yóbbu ndax bu ñuy bayee ba pare li ñuy jaay li ñuy yóbbu dinañ am fuñ ko jaay loolu dootuñu am problème ndax képp ko ci bay ak loo mënti bay lu mu mënti doon mu doon gerte mu doon mboq mu doon bissaab lu mu mënti doon danga koy delloosiwaat ci biir usine bi usine bi jëlaat ko usine bi jëlaat ko transformé ko su ko transformé ba pare du ko du ko du ko jox ma demba du ko jox ma sàmba jigéen ñi nekkoon ci biir doon liggéey doon ko bay ca nawet ba ñoom ñooy wëlbatikuwaat ñëw ci noor bi ñu jox leen ko ñu dugg ci dëkk bi di ko jaay donc chaîne boo xamante ne la day continuer kon dama lay wax ne at bi yëpp jigéen mën na bañ a toog bu fekkee nekkul ci bay ba fekk na ñëw na fii bay ba pare ñu transformé ko delloowaat ko ko moom mu dugalaat ko ci marché bi bu ko dugalaatee ci marché bi ñu jëndaat matière première ñëwaat bayaat transformé waat seen bi di continuer donc bu fekkee ci mbiru trans euh, kii bi loolu lay doon su fekkee si mbiru entrepreneuriat bi tam dinañ former nit ki ba nga xamante ne dina mën a entreprendre boppam fexe ba nga xamante ne dina am xel mu dal ndax ki képp ki entreprendre da ngay am fit dinañ def ci jigéen bi fit bi nga xamante ne du xalaat ëllëg damay perte su ma perte est-ce que lii suma ko dugalee dinaa perte non dañ koy def ne ko mu fexe ba jàngal ko ne ko boo nekkee ci dara même boo ci am ay gàllankoor warul tax nga dellu ginnaaw dangaa war a persévérer dangaa war a continuer ba nga xamante ne li nga bëgg li nga mébét di nga ko am donc wàll wàll boobu dinañ ci euh, former jigéen ñi tam ba ñu xam ne lan mooy njëriñu entrepreneuriat ba du duñ ci duggee duñ ci am benn jafe su fekkee ne wàllu import export bi tam même chose lay doon dinañ dem jëndi lu nga xamante ne dañ koy indi transformer ko ci usine bi mais bu buñ paree tam dinañ ko defaraat ba nga xam ne dinañ ko mën a génne bitim réew jaayi ko te lool lépp tam suñu mébét mooy jigéen ñi nga xamante ne ñoom ñoo koy def mais waxuñu ne projet bi 100 pour cent jigéen lay doon parce que tam am na métier yoo xamante ne bu ñu ci nekkee ci biir il faut am na yenn métier yoo xam ne xam nga jigéen dafa néew doole il faut am góor nekk ci wetam di ko jàppale mais li li ñu li ñu bëgg ñu comprendre mooy euh, initiative bi moom mooy dooleel jigéen ba mu mën a demal boppam waaw projet bi tam ñëwul pour di yëkkati xaalis di ko jox nit ne ko am lii maa la ko jox demeewul noonu ni mu demee mooy dañ lay jàngal métier nga mokkal sa métier des ak ñun wala nga mokkal sa métier dem ak sa métier defal ko sa bopp ñun nag li ñu gënal daal mooy ki ñuy jàngal ba pare mu toog ak ñun liggéey ak ñun mais ku ci dem tam mën koo defal sa bopp dem defal ko sa bopp mu mu doon sa liggéey bopp loolu tam amuñu ci benn jiixi jaaxa bu ñuy am donc day dess ci choix bi ci nit ki nga xamantene mom moy xol ndax bëgg na maa des ak liggéey ak Star Industrie mu des bëgg na maa demal sama bop ñu bàyyi ko mu dem ak boppam donc li leen bëgg xamal moy formation mom c'est gratuite xam-xam bu ñu bëgg sotti ci jigen ñi la pour jigen ñi mëna démal sen bop donc xam naa ne pour mu pour gëna yaatal dama leen di bàyyi ak peut-être Abdou Guité mu gën leen expliquer formation yi nan lay war a mën a demee parce que instant bi formation yi normalement dañ ko waroon a commencer semaine prochaine mais ak koor gi di ñëw ak tàngaay bi dañuy gis ne jigéen dafa li may wax dafa néew doole toujours bëgg a lijjanti sa kër bëgg ñëw jàng si bëgg a lijjanti say ndogu day metti léegi nag ci lañ xalaatoon ne nañu bàyyi ba koor gi jàll bu koor gi jàllee ñu soog a commencer def formation yi mais mais entre temps entre temps bu ñu paree ci lii dinañ leen wax ban jour la ñuy mën a seet GIE yi nga xamante ne d'accord nañ ci concept bi ñu bëgg ñun ñu liggéeyee suñ ci d'accordee ñu ñëw ñu xool ban jour la ñuy toog ñu programmer formation yi wax leen nan lañ koy defee formation yi itam génnul ci biir usine bi ci biir usine bi la ñuy defee formation yi formation yi am yëpp ci biir usine bi lañ koy def mais bu ñu former nit ñi ba pare former leen ci lépp li nga xamante ne bëgg nañ ko ci ñoom ba ñu mokkal ko tam dañuy dinañ am place boo xamante ne fa lañ koy defee ndax bi ñu la jàngalee nga ni ñuy bayee ba mu ba mu rentable ba nga war see mën a indiwaat ci usine bi usine bi jënd ko dangay ngay soxla place da ngay soxla espace donc espace boobu itam day doon loo xamante ne dañ koy demander commune bi pour commune bi jàppale ñu ci tool boo xamante ne dinañ fa mën a yóbbu suñuy jigéen jàngal leen nu ñuy bayee jàngal leen nu ñuy élever jàngal leen lépp li nga xamante ne day tax ñu gën a avancer ci kanam loolu tam loo xamante ne lu ñuy solliciter commune bi lay doon donc affaire bi que nous la pour ñu solution ok je